yooyu composé ko kon nag yàlla rek mooy ki nga xam ne moo ñu bindal yi ci suuf yépp xalaqa lakum ma fil ardi jamian gannaaw ga sumastawa yàlla dem dal di yemoo wala sumastawaa jalal na dal di jublu yàlla jublu ila samaa yi jëm ci asamaan fa sawaahunna mu bind leen fa sawaahunna duun mu yemale leen looloy luxa ja waaye luxa alquran beneen la fa sawaahunna mu bind leen saba waatin ñu nekk di juróom-ñaari asamaan loola nan la nekkee juróom-ñaari asamaan duhul li daqaayiqul axbaar wax naan bii weñ gu ñuul la bi përëm déedéet daf leen bind ñu nekk juróom-ñaari asamaan ci melokaan woo xam ne ñun mënuñu koo xam xëy na jotuñu ko mënu noo xam ni mu ko nekkee waaye tudd na ko kon amee na noonu am na ci ulamaawu tafsir ñu wax ne eh, ñu wax ne eh, sept planètes yu mag yi yàlla bind nga xam ne dañuy daw di wër jant bi ku ci nekk sori ga nga sori jant ba ak wër gi nga koy wër nangami eh, ci nangami weer wala ci at wala ci nangami fan ñu ne degré boobu mu sori jant ba di ko wër foofa samau la keneen ki noonu keneen ki noonu keneen ki noonu ndax eh, suuf si nu nekk nii moom benn biddiw la mu ngi wër eh, jant bi dana wëndeelu wër ko ci lu war a mat 24 heures loolu mooy indi guddi ak bëccëg nee na mu ne degré yooyu ñuy soree mu ne loolu moo indi Eh, loolu moo indi ñu naan asamaan si nangam bo demee ci biddiw bu mel ni Neptune nga ne dafa sore sore sore sori ba balaa moo jeexal falakam mu nek ay weer yo xam ne yu limu la koku mo nek ci asman bi nga xam mo gëna kawé lolu kawe samaaw yi ñu bari ci mufassirone yi lolu lañu wax ndax it eh, ulama yi nga xam ne ñoo toppatoo eh, géographie su fekkee seen wax joju wér nak wérut lolu ñun xamun ci dara en tout cas sama yàlla wax na ko nee na juróom-ñaar la ni mu nekkee nag bu ko géographie xamee affaire am la bu fekkee li ñu wax du loola it moom am na donte dañ cee munta ak itam saba sama waat am na waxuwa yàlla moom alimun aji xam la bi kulli cheyin ci lépp lëf bàyyi na loolu bu fekkee dafay wàcc cib téere bind doomu aadama dafay wàcc ceeb téere war a ko joxoog nit nit kooku war nañoo xam fan la jóge te it falasifa euh, yi philosophie ñu ngi bind ku ci nekk di ay xalaatam xam-xam bi gën a yées ci àddina mooy bu ñuy tuddee philosophie mu gën a yées ndax du xam-xam bu amee régal ku ne ngay wax lu la neex rek ak di weddi wante dara saxut fen kii day wax lii bu ñëwee kii weddi ko xam-xamu yooyu rek la doon tax na ba am na ci ñoom ñu bind comme ay Barnard di yooyu ñoom dañoo bind ne doomu aadama benn microbe bu tuuti la woon di nekk ci ndox comme walax njaan am geen mu màgg di développé ba geen bi dagg ba yàgg mu mel ni mbott yàgg mu mel ni mbëtt ba yàgg mu nekk golo ba yàgg mu daal di jóg taxaw ki tànkam ñàkkub geen nekk doomu aadama ñu ne doomu aadama kon ci golo la jóge salaam Moussa bind na ci superman al insanul ala Bernardishaw wax na ca nazariyatu tatawur wa aslul insan waaye ay ay wax rek la ndax wax yoo xam ne doo am fenn foo koy foo koy teg lu may ci sa xel rek ndax itam li leen di weddi lu simple la su fekkee nit a ngi jógee ci golo kon fokk danañ mës a jàpp golo goo xam ne mu ngi bëgg a nekk nit te pareegut ñu nekkii kii de léegi tey mu nekk nit waaye booy jàppee golo ni mel lay mel rek te ba tey golo yi jur golo loolu benn beneen bi moo di ne su fekkee golo dafa avancé ba nekk nit kon nit waroon naa tardé far nekk golo ñu ne kii dafa tardé gis nga ko moom day nit la woon waaye léegi nekk na golo te loolu tam du mën a am kon yooyu amut nit mu ngi jógee ci mbindeef mu tudd aadama aadama mu ngi jógee ci suuf yàlla moo ko bind teg ko fi nit ñëpp nag foofa la ñu jógee waaye jógewuñ ci golo golo moo jógee ci golo nit jógee ci aadama looloy nazariya bi wér bi yàlla bëggee bind aadama nag mu fassiroon yi nee nañ yàlla dafa woo ay malaaka ne leen man dey dama bëggoon a bind nit def ko ci kaw suuf mu ne malaaka yi ne ko ndax dangaa bëgg a def ci suuf ku mel ni ki nga fi defoon koo xam ne day tur ay deret di yàq loola gaa yi dañ cee dégg ne kon am na meneen mbindeef yu fi jiitu woon doomu aadama yu fi jiitoon aadama te ñooña baaxuñu woon xëy na ay seytaane lañ dañ bonoon ba mel ni seytaane te ñooña yàqoon nañ fi tur fi deret ñu ne ndax ñu ne lu tax loolu su fekkoon loolu amu fi woon malaaka du xam yàq ak tur deret banaan yàlla ndax da nga def ku mel nii kuy def nii def nii ñu ne dafa am kon ñu fi nekkoon dama ci kashful xijaab moom dañuy wax naan xeet yu ñu daan tuddee tàmmoog ràmmu ndax loolu wér na <clears throat> comme xadis rotu ci duñ ci mun dogg <clears throat> ala kulli xaalin malaaka yi ne nañ ko yàlla ndax danga nga fiy def kuy tuur ay deret ak di yàq wala déet mu ne te ñun malaaka de gis nga nu fuñ toll ñoo ngi sell di la jaamu tee nga banu fi yàlla ne waaye xam naa li ngeen xamut gis nga kooku ngeen yaakaar ne dafa bon su ñëwee mën na baax ba gën leen comme mën na bon ba seytaane ne ko it mën na baax ba gën malaaka ndax malaaka du nelaw du lekk du naan du sëy du am doom bëggul xaalis amul dara amulu yaram ak leer la kooku bérébu mooy yàlla nekkut ci moom dama aadama mi am bakkan ak ruuxu nag di lekk di naan di def lu nekk kooku bu notee bakkan bi ci lépp lu yàlla aayee ba far yàlla mooy gën malaaka ndax xeex na ak dara moo tax yàlla ne leen xam naa li ngeen xamut te nag ku am solo ki ci kii la laa koy génnee mu di yonent yi ci aadama mi laa ko nar a génne mu daldi di tooyal suuf bind ko tën ko dal di bind ruuxu ne ko kaay dugg ñaari riwaaye la ruuxu ne ko déedéet man du dugg ci kii kii ku lëndam duma ci dugg benn riwaay bi ne yàlla ne ko kon dugal ci doole ëllëg booy génn ci doole ngay génn mu dugg benn riwaay bi ne yàlla dafa yebal ay malaaka kuróobi yoon ñu ñëw di ko di di di tagg yàlla te roox loolu daf ko neex waxtu bu ne yàlla day neex rooxu ba ñuy tagg yàlla rox gi kontaan ba dugg te yëgu ko ñu ñëw naan ko lakal majdu law zaharat lahul mulku ajmau la ilaha illa anta ba mu dugg kooku it beneen riwaaya la allahu alam bi sihatiha ala kulli xaalin li ñu amal solo moo di bi yàlla bindee mbindeef moomu daf koo xamal dara lépp lu nekk ci àddina amul tur rek mu xamal ko aadama di def nag examen bëgg woon malaaka yi ne kii gën a xam gi mu leen gën a xam moo tax mu gën leen mu woo malaaka yi ne leen lii lan la ne xamuñu ko lii ñu ne xamuñu ko yàlla ne aadama wax ko aadama lii aadama ne lii day jaasi la sémmiñ la ndox la suuf la asamaan la lu ne ci àddina rek aadama wax ko yàlla ne malaaka yi nakam ñu ne ko yaa la wax nga dëgg xam nga lun xamut xamunoo ne kii nii nii la nu gënee bay xam lun xamut mu ne ko nag sujjootal leen ko ñoom ñëpp ñu daal di sujjoot ci kanam aadama ngir màggal borom bi tabaraka wa taala ci luñ ko màggalee ci mbindeef mu am solo mii mu def mu ëpp leen xam-xam fuuf su ko defee am na ci ulama yi ne kon kat ndem yàlla moo ne woon nañ su jootal aadama kon su jootal nit euh, dagan na ndax yàlla moo ko santaane waaye gis nga ñàkk seetlu alquran tontalaan ci biir yax bi xam nga ne loolu waxu ay nit ay malaaka la ko waxoon wa is qul naa lil malaayika malaaka yi lañ waxoon nañu su jootal aadama waaye mësu koo wax nit loolu mu ngi ci biir aaya bi jàng ko mu ne wa is qaala ba waxee ko sa borom lil malaayikati ñeel malaaka yi ne indi ma dey jaayilun aji def laa fil ardi ci suuf xalifatan kuutaay ñaari prix la xalifatan mu wuutu la fi nekkoon te bon mën na nekk wala xalifatan man yàlla ma wuutal ko ci suuf mu wuutu ma fi di wéyal samay ndigal waaye xam nga ne yàlla bu nekkee xalif eh, aadama bu nekkee xalifa yàlla taxul aadama mel ni yàlla nga ciy déggee nag ne xalifa wu nit taxul nga mel ni mu mel xalifa moom ki ñu doon jàngal da daan wax ne aaj cam xalifa kay magal ci kër gi rek boo fa magee moom nit mënu ci dara yow la du du tekki ne mel nga ni kooka moom danga nga fay mag rek kon nag aadama it du ne dafa mel ni yàlla wala mu mën lool déedéet moo fi nekk rek mu xalifa ko fi xaaloo ñu ne ko atajaalu ndax da ngay def fiyaa ci suuf man yuf si du kuy yàq fiyaa ci suuf si wa yasfiku muy tuur dima ay deret wa nahnu te ñun nu sabixu noo ngi sellal bi xamdika ci sa cant wa nu qaddisu nuy sellal laka ñeel la qaala wax yàlla ne inni man aalamu dana xam maa loo xam ne laa taalamuuna xamu leen ko wa allama xamal na yàlla aadam alasmaa turiya kullaha yépp suma aradahum mu gaaral turiya alal malaayikati ci malaaka yi fa qaala mu ne am yi solo leen ma bi asmaayi haawulaayi ci turi yëf yile in kuntum ndem nekk ngeen saadiqina di way dëggu ci loola kon da ngeen ko def xaaloo ñu ne ko subhaanaka sell ñeel na la laa ilma déet benn xeeti xam-xam la naa ñeel ñu illaa ma 'allamtana lu may la nga nu xamal ci la nu yem innaka naka yow anta yow alalimu ya ji xam alxakimu ya ji xarala ci say njëfteef qaala wax yàlla ne yaa aadam kon nag jàngal leen ambiuhum solo leen bi asmaayim ci seen tur ya falama ambaahum bi nga xamee ne aadama solo na gaañe bi asmaayim seen tur bañ xam yépp xaala mu ne alam aqul yàlla ne leen ndax waxuma woon lakum ñeel leen ne inni man aalamu danaa xam xay ba samawaati li faddu ci asamaan yépp xam naa ko wala ardeeg suuf waalamu danaa xam maa tubdoona la ngeen di feeñal wa maa kuntum ak la ngeen nekkoon yépp tag tumoona di nëbb xam naa ko loola mu fassiroona yi ne nañu euh, malaaka yi dañu doon nëbba ne bu fi yàlla def keneen na leen fi wacc ñoom loola lañ doon nëbba ci seen biir yàlla ne man nag xam naa li ngeen feeñal ci wax jeg li ngeen ci nëbb yépp dara réeruma ci way qul naa jàngatal ba ñu waxee lil malaayikati ñeel malaaka yi usjudoo sujjóot leen xajaas yi ne na sujjóotu takrim la laa sujjóotu li ibaada li aadama aadama fa sajadoo ñu sujjóot ñoom malaaka ya illaa iblisa lu mooy iblisa moom abba bañ na wastakbara mu rëy rëylu wa kaana nekk na min alkaafiriin ci way kon iblis bokkut ci malaaka ya boole giñ ko boolee ci malaaka ya naan is qulna lil malaikatu usjudu li aadama fa sajadoo ila iblisa du tekki ne malaaka la kooku istisna munqati la ko nu xaatu di tuddee mu ngi mel ni nga ne fekkuma ci néeg bi fekkuma ci kër gi kenn lu mooy mbaam mbaam taxul mu bokk ci nit ña waaye moom rek moo fa ne iblis itam loolu dugalu ko ci malaaka ya moom danañ jàng ca kanam ne kaana minal jinni kon ci jinne yi la bokk waaye bokkul ci malaaka yi waaye dafa bokk ca mbindee ya fa amoon ca waxtu woowale waroon a dégg ndigalal yàlla bàyyi na loolu mu ñëw nag ci aadama bi ko yàlla bindee ba sottal bàyyi ko fi kan la fi nekkal nekk na fi ak seytaane moo di iblis ñaar ñii seytaane ak Hawa ak Adama ak jaan ñeenti mbindeef yii du ñu mën a juboo du ñu mën a ànd ndax seen tabia dafa opposé wante kii nature mu ngi bàyyee ci suuf mu di Adama ak Hawa kale tabiaam mu ngi bàyyee ci safara moo di iblis jaan bàyyeekoo ci iblis jaan jaan yi ñoo jur jaan ju nekk rek seytaane moo ko jur moo tax ci arab kalimatul jinneeg jaan dafay wante seytaan ak jaan ak jinne ci arab benn baat la bari na lu seytaane yi wala jinne yi di soppeeku ay jaan moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ngi ci mujjug e, téere risala ko ci fekk waaye ay xadis la daana wax ne ku gis jaan ci madina nanga wax jaan ji ne boo ragalee yàlla bu fi feeñati ci waxtu wi soo ko ko waxee gisaat ko ba man ñetti yoon nga rey ko xam ne jaan la boo ko gisaatul nga xam ne kooku jinne la te am na ci jinne yi ñoo xam ne dañoo dañoo gëm yàlla jinne yi nga xam ne ñoo daje woon ak bi alayhi salaatu wasalaam dañ dañ dañ daan soppaliku jaan di nekk ci biir nit ñi te jinne melokaanam dafa doy waar moom day def te shakkul maanaam day am jël melokaanu keneen ak melokaanu leneen yàlla moo leen ko bindee abdullah ibnu mas'ud radiallahu anhu dafa doon tukki di tukki ba yàgg rek mu dégg mu gis benn ngelaw ak benn ci laweer mu daal di taxaw ba mu taxawee mu seen jënn jaan ju rafet ci wetu yoon wi mu dal koy jël xotti kaalam gi lëmas jaan ji gas ko suul ko ca laweer la yënguwaat mu dégg ngelaw li mu dégg benn waaye ngay yuuxu ca kaw ne ko suul ngeen saaba yonent bi alayhi salaatu kooku man ak moom rek noo des ci jinne ya doon wax ak yonent bi ca laylatal jinni kooku diw la loolu mooy tekki ne ñoom yatashakkaluun buur ne waqul naa ñu ne yaa aadam uskun dëkkal anta yow wa zawjuka ak sa jabar aljanata aljanna wa kulaa lekk leen minhaa ci aljanna ragadan yaatug dund xaydu shiituma fu leen neex ولا تقربا بولن جگه هذه الشجرة گل گرب فتكونا سبب سدنگنك من الظالمين چوي توانيا فأزلهما ترقص لولن شيطان عنها چلن لن ترون فأخرجهما مجنة لن مما كانا چلن نكون فيه چلالو yàlla ne leen bu leen lekk garab gi boo demee ci chara yu bari dañuy sonn ci jéem a xam garab gi ak nu mu tudd nangam ak ki nangam waaye jarul sonn ndax garab gi comme ci aljana la yàlla wax kon li woor mooy nekkutoon fii te xam ngi du am benn njariñ te lay njariñ ci garab gi rek moo di ne ndeke kuy dund fii dañ la am lu ñu lay tere ak lu ñu lay digal loolu rek moo tax yàlla ne bu leen jegee garab gi waaye lu mooy loolu rek nangeen ci daal di dem bañ ca lekkee nag yàlla daal di ne ah kon nag mbir maa ngoog waxoon naa bu leen ko def def ngeen ko kon fokk ñu war leen yitt ci mel ni mbugal yàlla ne kon nag waxul naa ñu ne ihbitu wàcce leen jëm ci suuf baadukum lenn ci yéen li baadin ci ñenn ñi àdduwun noonu lañ doon léegi nag yow jaan ak iblis ak ak aadama dootu leen bëggante mukk fu jaan feeñ rek nit ñi jóg bopp bi daal di toj du ñu juba mukk wala kum ñeen leen fil ardi ci suuf mustaqarun saxuwaay wa mataaun ak xéewal ilaa xiinin ba ci jeexab seen ab dig fa talaqaa dal di saw aadamu aadam min rabbi bàyyi ko ci borom kalimaatin ay baat aadama lekk gi mu lekk garab ga xawaa lekk na ko dara xewut ndax am la waaye bi aadama lekk garab ga rek moom ma nekk xaas ndax moom la ñuy waxee dañ leen dal di génnee ca aljanna ja aljana jooju riwaayaat yu bëree ngi ci bëggunu koo gaarlu ñii dañ ne ndax mooy janatul xuldi ñu ne déeréet ab tool la bu nekkoon ci àddina docteur jaar moom loolu la wax daf ne ma ngi nekkoon ci muhitul haadi nekk benn jazira mu ne foofu la woon mu ne ay salasil ak barakin ñoo fa jaar ba yàq ko ba dun boobu àddina am loolu la na jaar wax ci xasasul ambiya te indi na ci ay barahin ay lay yoo xam ne yu dëgër la yàlla xam ndax loolu am naam déet comme hadis rotu ci duñ ci dogu waaye duñ ko weddi ba mu lekkee daal lañ ko tere woon génn na ci ca aljanna jooja wala ca tool boobu dem na dëkk ci jeneen àddina joo xam ne balaa lekk fokk dana sonn dana bay balaa naan fokk mu am ab teen léegi nag mu xam ne moom def na benn bakkaar bakkaar boobu nag lan moo ko dindi bul gëm nag ñi nga xam ne moom la masixiyoona yii di wax naan aadama bakkaaram boobule te xawaa ko ci dugal boo demee ca euh, linjiil linjiil dafa linjiil euh, injiilu mata boo demee di di ko liir daf lay wax ne bakkaar boobu nga xam ne moom la xawaa defoon lekk garab gi ba xiir ci aadama moo tax jigéen du mat du nekk nangam du nekk nangam du tolloo góor wax ci yu baree baree baree bare mu ne nag yonent yàlla Isa moom mooy ki nga xam ne moo jël deretam jotee ko aadama ñu rey ko deretam tuuru ndax ñu baal aadama alquran ne déedéet fa talaqaa na aadam min rabbihi mu bàyyee ko ci boroom kalimaatin ay baat ay baat la ko boroomam sax mu wax ko ñu baal ko mooy rabbana dalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin baat yooyu la wax fa taaba mu nangu tuuba ali ci moom innahu yàlla wa moom attawaabu mooy nangu waa ko ñi tuub arrahim mooy aji yëram qul naa ñu ne ihbitoo wàcc leen min ha bàyyee ko ci suuf jamian mboole seen waxoon na fale ihbitoo ne ba li baadin adu ne ha ihbitoo alquran ñàkkute fasaa bay def takraar waaye dafa am lu mu ci bëgg a yokk mooy bu ngeen dëkkee ci àddina soosu da ngeen di xaar nag danaa yónni ay yónint ku leen topp danaa ko yëram ku leen weddi danaa ko mbugal moo tax mu ne yebitoo minha jamian fa imma yaatiyannakum ndem dikkal na leen min nii bàyyee ko ci man hudan am njub fa man tabia ku topp na hudaaya samam njub fala xawfun det ragal alim ci ñoom wala hum den ñoom yaxzanuna ñuy tiit wala dina ñi nga xam ne ne kafaroo weddi nañ seen borom wa kaddaboo ñu narloo alquran ji bi ayatina ci suñ kawteef yi ulaayika ñooñu asxaabu naari ñooy boromi safara xaaliduuna way beelu lañ beelu mooy sax fiyaa ca safara soosule bay na loolu tàmbali na nag di waxee ak banu israil banu israil la tàmbali dana wax ak ñoom fii ndax bi muy tàmbali saar wi téere bi la njëkk a wax bi ngay jàng gannaaw gi mu indi la nit ñi ni ñu wuutee gannaaw gi mu léeba laay ci naafeq yi gannaaw gi mu santaane ni ñu war a jàmm yàlla gannaaw gi moo indi tegtal buy wone ne alquran fi yàlla la jóge gannaaw gi mu xupp ñi weddi bégal ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla mu indi ay lay ci kaw yéefar yi ba lottal leen mu indi lu luy feeñal kàttanu yàlla mu waxtaanee ni yàlla bindee aadama ak ni mu ko teralee mu daldi tàmbali nag bëgg a waxee nag ahlul kitaab mooy yahud yi ndax ñoo fa gënoon a bari ndax ñoo gënoon a bari te it amoon nañ benn position maanaam fu ñu taxawu yonent bi kon ñooñu la bëgg a waxee ni ñu gisee yonent beeg ni ñu gisee alquran kon yahood yooyu lay wax israil nee nañu kalima ibriya la nee nañu isra mooy abdu il ci làkku yahud mooy yàlla abdullah loolu turu yaqub la woon kon yaqub mooy israil abdullah kon bu ne israil mooy yaqub ay doomam nag lañuy xamee yahud ñépp ñu bàyyi ko ci moom ñoo tudd yahud taawam moo doon yahuda ñoom moo tax ñu leen di wax yahud soo ne yahud yaa ngi leen askanee ci yahuda ibnu yaqub soo ne bani israil yaa ngi leen askane ci yàqub jalaale ni nee na ndax israil yàquba la ci boppam walla fami ba yépp moom daf ko laajte léegi nag buur na yaa bani israil eey yéen bani israil uskuru fàttaliku leen nicmat yi ay xéewal sama muy fukki xéewal yoo xam ne yàlla jox na ko bani Israël def leen koy ñaxee ne ndaxam dee waay maa leen defal nangam ak nangam bu ngeen weddee ki ma yónni it xéewal yooyu lay wax naan ana amtu aleykum waaw foo matal leen bi ahdi sama kóolëre ndax waxoon ngeen ne ku ma yónni da ngeen ko gëm oo fi kon may dinaa matal bi ahdikum seen kóolëre ba dugaleen aljanna way yaaye man yàlla daal farhabooni ragal leen ma wa aminoo gëm leen bi ma ansaltu ci li ma wàccee musaddiqan mu nekk di aji dëggal li ma maakum ak la nekkoon ci yéen téere bi ngeen yore woon wàcce naa téere buy dëggal booba kon gëm leen bi la it wala bu leen nekk awala kaafirin njël benn ñey weddi bii ci téere bi bu leen jiite weddi gi wala tashtaro addina mii bu mu leen jaral moos ngeen di weddi alquran bëgg nekk ay sang bëgg nekk ñu yore tawraat ñëpp di leen topp loolu mooy àddina bu leen ko jaay mukk moom gëm alquran ji àddina moom le bu leen ko ko jëndee looloy walaa bu leen jëndee bi ayat ci samay kawtéef sama nan ak njëg goo xam ne xalilan aji tuuti la ko defee nag sa mbokk moom moomu sant jaw yaakaar ne mooy nga bind benni orko dal di ko lem ñu jox la ci juróomi dërëm nga ne aal tuuti na kan ndax walaa tashtaro bi ayat yi sama nan xalilan fekk waxut loolu dafa bëgg a wax ne aaya alquran ji bu leen ko jëndee àddina àddina bu mu tax ngeen di ko weddi loolay walaa tashtaru bi ayaati samanan qalilan way yaaya man yàlla daal fattaqu ni ragal leen ma wala talbisu bu leen jaxase alxaq dëgg bil baatileeg caaxaan wa taktumu ngeen ba xaq dëgg ga wa antum te yéen taalamuuna ngeen xam ne mooy dëgg waa qimoo taxawal leen salaatu julli waatoo joxe leen zakaata asaka war ko julli leen maa raakiina ngeen ànd ak ñi nga xam ñoy ñooy julli di ruku ak sujud legi nak mu ngi ñew ci wal yahud moy borom xam-xam yi nga xamne ñoo ci bani israël ñom dañuy war nit ñi di len digal ne na ngeen julli na ngeen bax na ngeen saraxé na ngeen def nangam nangam ah na ngeen sax ci gëm yalla gi te ñom nak saxuñ ca ndax ñoo jiite weddi ak yaq gi sama borom nekk na kon yéenay sondel da ngeen di tak rek di leral keneen waaye di di lakk seen bopp yàlla ne atamuruun ndax da ngeen di digal naa sa nit ña bil birri ci baax watan saw na ngeen fàtte anfusakum seen bopp wa antum te yéen bi ngeen koy def tatluuna yéen a ngi jàng alkitaaba téere ba afala taaqiluun xanaa amu xel gis nga alquran bi ci nekk naa sa bil watan saw na anfusakum bu fekkoon loolu dong la sax du yéemu waaye waxtu wi ngeen koy def wa antum tatluuna alkitaab kon xanaa da ngeen dof yéen a ngi jàng téere bi mu leer nañ ngeen xam li ci ne ngeen di ko digal nit ñi te fàtte seen bopp te bés bu ne ngeen di ko jàng xanaa xel newu fi wastaino na ngeen dimbandikoo bi sabri ci muñ ndax eh, digi ndigal yàlla yi topp ko fokk dafa ajoog muñ dafa metti wa salaati ak julli itam way naa naka julli la kabiratun lu jafe la illaa alal xaashiin lu mooy ñiy toroxlul yàlla ñooñu julli di leen jafe alladina mooy ñi nga xam ne yadunnuuna danañu woolu kooku jaanibu alyaqiin yarjax ala jaanibu danni duñu wax yadunnoona jortu yadunnoona danañu woolu la ne annahum naka ñoom mulaaqu rabbihim way dajeeg seen borom lañ wa annahum naka ñoom raajiuuna way dellu si lañ ilay jëm ci yàlla yaa bani israil uskuro fàttaliku leen nicmati ay xéewal sama alati yi nga xam ne ana amtu xéewal naa ko aleykum ci yéen waa nii man faddaltukum mooy gënal naa leen alal aalamiina ci bindee fii mooy yéen bani Israël yonent yooyu yëpp ci jamono jooju ci yéen rek la daan génn kooku xéewal la mënoon ngeen ci sant yàlla ba topp ma wattaqu ragal leen yow man bis boo xam ne su jotee laa tajzi du jëriñ nafsun bakkan an nafsin ca morom ma cheyan dara loolu doy na waar boobu moom bu alquran bu ci dara wàccutoon lu moy loolu ñun ñëpp ñu mën a ku ne mën a mën a jël say dàll xam fooy jëm wattaqu yow man la laa tajzi nafsun an nafsin a ragal leen bés boo xam ne su ñëwee amut benn bakkan buy mën a jëriñ morom ma tus boo doon wax naan moo yàlla baalal diw ku baax la it yàlla ne walaa yuqbalu deeful nangu min haa ci moom shafaatun ramm yàlla baalal ma diw mu ne sa ramm moo duñ ko nangu boo doon wax ne ku jubla woon di ko maandoloo yàlla ne walaa yuuxadu deeful jël min haa ci moom adlun génn maando kon nu ñuy def wala hum deen ñoom yunsuruuna defi tere leen walis mbugalam yàlla mi nasru yi ndimbal la waaye du firi loolu fii defu tere leen lan koy firee ci biir téere bi bokk na ci léegi nag mu ngi lim xéewal yi nga xam ne yàlla jox na ko bani israel mu di fukk benn bu njëkk bi mooy man yàlla maa leen musal ci firaw na ba ngeen jàll ci géej ga rëyul leen ba muy rey ñu góor ña di bàyyi ñu jigéen ña mu musal leen ba yéen ñëpp deewu leen ci ñaareel ba mooy ba ngeen ñëwee ci géej ga man maa ko wowal ba bu Muusaa dore yet wa ngeen am fu ngeen jaar ñetteel ba moo di ne bi ma leen waxee tuub leen ngeen bañ a tuub man yàlla maa leen baal bakkaar boobale ñeenteel ba mooy ba ñu joxee Moussa tawraat muy téere buy teqale dëgg ak fen loolu ci xéewal yi la juróomeel ba na ngeen fàttaliku ba Moussa ba leen fi Moussa bàyyee ngeen di jaamu aw yëkk te booba Moussa ma ngay woor ñeen fukki fan guddeeg bëccëg ngir jotab téere yéen ngeen di jaamu aw yëkk te man booba maa leen baal te suma len baalu bon yéen ñëpp bon ngeen dal di alku mu ne ba tay ne xewal ya moo di ne ba ngeen waxee ne Moussa won ñu yàlla ñu moom jibril xaacu leen yéen ñëpp ngeen dee ci saasi man yàlla maa leen dekkal defaat leen ay nit loolu xewal la mu ne juróom-ñaareel ba yent yàlla Moussa alayhi salaatu Wassalam, ba mu laxasee jógee jógee Palestine ne day xeex ak jabaabiruti yi nga xam ñoo nekk ca Cham mooy nitu iwaj ya ñoom ñu génn lank wor ne dootu ñu dem yàlla na nattu leen ñu gëlëm gëlëm dem ba fu naan waadu tiiha ñu gëlëm fa waadu tiiha ma ngi nekk diggante sham ak égypte sax nañ fa lu man ñeen fukki at ànd ak musa gëlëm duñu dem duñu dikk foofa taw nekku fa amul garab amul dara Musa mooy samp yet wi mu nekk ker Musa mooy dóor ci xeer fukki seew ndeg ñaar ñëw musa mooy ñaan yàlla mu génne leen yàpp gëmmant ak ay gàttu ñi di ko lekk mu ne ngeen a fàttee góog a xéewal mu ne bokk na ca ma leen di wàcceel taru sumaana ak taran jabil mu ne juróom-ñeenteel ba mooy ba ngeen di dugg baytul maqdis maanaam yéen ñëpp na ngeen dugg baytul maqdis di sujootal yàlla ngeen lànk ku nekk di sujootee genn wàll ak jë ba ñu yëkkati xeer yu mu tim leen way na taq naa bi eh, mu aljabal mu nekk ci seen kaw loolu gëtërewul yàlla moo leen moo leen baal bàkkaar yooyale mu ne fukkeeli xéewal ya ci bani Israël mooy bi nga xam ne Moussa mar ngeen ci ci waadi tiha muy dóor ca doj woowo euh, ndox mi di génn ngeen di naan kon nag fukki xéewal la ngoog yu leen yàlla defal yoo xam ne yéen bani Israël waroon ngeen ci mën a jaar ba gëm yàlla ngir sant ko moo tax mu ne wa is najinaakum fàttalikul ba ñu musalee leen minaali na yasumuuna ku muy togg leen soo la azabi ñaaw ak mbugal yu dabixuuna ñuy rendi abnaakum seen doom yu góor ya wa yastaxyawna ñuy desal saa nisaakum seen jigéen ña wa fi dalikum nekk na ca ku juddu góor ñu rey ku juddu jigéen ñu bàyyi balaawu nattu la azimun bu màgg nag min rabbikum bàyyee ko ci seen borom wa id farraqna fàttalikul ba ñu teqalee